maa ngi leen di nuyu di leen man la Pape Fall di ñëwee fii marché Grand Thiès jàngee ñëw at le Khalifa Dieye anga sëñ Fall wala jàngee ñëw mooy sama patron lu nekk ci man moo ci def kon maa ngi koy sant bu baax di sant tamit sama benn grand frère bu ñu am Mbaye Fall moom it jaar naa ci moom ba mu jugee ci xalifa Dieye waaw ñu ngi koy préparé ñu ngi koy préparé bu baax a baax yàlla def na nag fu mu ne nii daanaka ñëw ci bari pare na instant bi dañuy livré rek waaw li ci des daanaka du néew la te incha allahu rabbi suba ci guddi gi nañ ko eggale incha allah. dox na dox na sant nañ bu baax a baax a baax waaw sant nañ mën nañu wax ni sax ren incha allah am nañ yaakaar ni moo tane daaw waaw am nañ yaakaar bu baax a baax a baax. parce que ren mën naa laa wax ni Abasanzo yi eh, double baat yi nit ñaa ngi koy ñaw te nekk na loo xamante ni ay ñaw yi rafet lañ koy ñaw xam nga def ci def yéene ba nga xamante ni nit ñi fu ñu ko gisee dañ koy bëgg am na si ñoo xam ne sax dañoo ñëw bëgg ko mais bi ñu ñëwee dañoo fekk affaire xat waaw ba nga xamante dañu ne mënul nekk. waaw Modou Ba laa tudd ah. fii Dabax Couture fii ci Grand Thiès. atelier bi tudd Dabax Couture. PAM euh, waaw avancé na nag avancé bu baax baax sant ko sant yàlla baax par rapport ak les années passées quoi. mais nii moom avancé na quoi le reste boobu mën nañu fii ak suba. moom la tudd affaire dina wàcc incha allah. waaw jigéen ñi moom xam nga rek ñoom moom dañ comme que tendance la jasneer bi moom moo ci ëpp quoi d' habitude. jasneer bi jasneer bi la ñuy ëpp lu ñuy utiliser quoi. xool tey baas coupe simple rek xam nga gars yi moom mooy loolu Sénégal léegi modestie bi gars yi dañoo simple tellement loolu pour samp maa ngi tudd Maba Fall. Hmm. waaw man doomu Paa Fall laa waaw. ñu ngi ne marché Grand Caisse. Hmm. waaw waaw ñëw ñu ngi si de waaw ñëw yi am nañu yaakaar waaw dina pare bi soobee yàlla. Hmm. waaw incha allah daaw moom moo gënoon kii xam naa weer bi amul quoi. waaw waaw am na jasineer bi génn na. waaw ak filaafil bi jigéen ni brodé yeeg affaire yooyu waaw loolu lañ kii waaw. xam nga rek waaw ku nekk ak expérience xam nga dëkk bi neexul. xam nga waaw dañ si jéem a def daal suñu kenn laay kàttan jàppale nit ñi kon ko bëgg na doon ñu amul xaalis daal xam nga waaw. waaw mm-hmm. prix ça dépend ñëw góor yi 10 000 francs waaw waaw ça waaw. ñëw jigéen am na ba 25 000 30 000 waaw. jigéen ay am na ay tay ak yooyu waaw. ñoom ñoo leen gën a tàmm ak robe ak affaire waaw. waaw client yi moom naa ne taxasi bi moom waaw xam nga ñun ñoom baalu ak ñëpp xam nga ñëpp moom mënuñoo kii quoi mais daal xam nga yàlla baax na quoi bu soobee yàlla waaw ñu jàpp waaw incha allah bu soobee yàlla. maa ngi fii ci marché Grand Thiès quoi tamit ñu ngi ci ñu ngi ci bu baax a baax a baax a baax presque fu ñu toll moom ñu ngi ci ñu ngi ci finition yi parce que ak commande client yi yëpp yëpp yëpp nañ daal ba. rendre seen service quoi fex nañ ba ñëw yëpp féete na boor le reste ko moom client ñoo ci des pour ñu ñëw jël ko quoi à fexe nañ daal sàmm suñu kaddu ak ñoom ñu waroon seen diggante ak ñoom ñëpp respecté nañ ko muy ñëw ko paquetel leen ko comme nii moo ko def nii paquetu nii teg di xaar su defee na ngay ñëw rek ñu livré la nga daal di dem. ni suba moom ku ñëw ñëw rek ngay jël duñ duñ ñëwaat ci machine ndax li ñu waroon a commande dañoo limité ñun dañuy limité li ñuy ñëw. dañuy jël li nga xamante ni dinañ ko mën a ñaw ñu ñaw boobu ñu amee kenn at ndax dañuy jël li nga xamante ne leer nañ ñun dinañ ko mën a ñaw ci distance bi nga xam ne xam nañ ak euh, même soo dee fekk distance bu 15 jours la xam ne ci mën a ñaw lii ñu jël loolu ñaw ko fexe na ba rendre ko seen borom. bi passé moo moo sooy xool chaque jour mooy mooy mooy tane ndax jamono ji dafay gën a metti ñaw yi di gën a wàññeeku à ce moment là fi mu toll ñaw xale moo ëpp ndax mag ñu bari leen ñaw lootul. xale yi ñoo ëpp ci li ñu leen di ñawal dama mm. ñu bari leen ñaw lootuñu en général fekkee comme góor ñi la da leen di ñawal comme ni euh, double baat nga leen di ñawal fekkee jigéen ñi la comme yi ñoom moom la ñuy ñaw mooy rob yi ñu defal ci euh, contre kii bi ñoom la leen di ñawal daanaka moo xew ñaar lañ koy lii sans dépend amul euh, amul prix fixe ndax ni ku ci nekk ak na nga koy ñawale ndax day am ñoo xam ne say client la ñuy doon yàgg na bi ngay jàng ñaw bi na nga nekkee am patron kooku nag su ñëwee par rapport ak ki nga xam ne ku bees la prix du bokk ndax prix day varié quoi prix day varié ñoo bokk ay na mën mën na jóge ba quinze mille encore mën koo ñëwalee vingt mille kii mën naa ñëw nga ñëwalee ko dix mille francs ça dépend ci ci ci nit ki quoi ndax des fois nit day ñëw wax la boppam su la waxee boppam nag ci métier mi ngay jàng ci ci ngay liggéey ci ngay mën a dimbalee nit ki. man maam Cheikh Diam laa tudd. maa leen di siyaaree di leen bu baax a baax ñëw tabaski waaw daanaka pare na de waaw ay finition rek ñu dese de ak livre waaw ah waaw xam nga rek ñun moom daanaka moom lépp dañ koy prévoir rek waaw <laughs> waaye sant rek nag moom wax dëgg yàlla moom vraiment moom fekk ko tatal ko daal moom la ñuy ñaan yàlla rek wax dëgg yàlla te taalibe Sëñ Tuubaa lañ loolu lañ xam bu weeru koo jëree ñu joxe ay ndogu bu màggal jëree ñu def safar mm-hmm. defar ay xéwal ba mu baax moo ko taalibe yëpp barkeelu ah waaw ci ñaw bi lañ koy jëlee mais ku tedd ki mooñ ko dimbalee nag wax dëgg yàlla waaw ah, ndax yàgg nañ koo jëm te booba yoraguñu place dañuy emprunté woo lañ ko commencé def ba léegi nii waaw incha allah rabi daanaka sax damaa toll ci pare nii sax de waaw livré de ci laa toll nii waaw ñëw yëpp pare na waaw ci man de moo ëpp ay ñëw chaque année moom daanaka ndax client boo ñëwal day kontaan indiwaat keneen moo tax chaque année rek moo ëpp ay ñëw daaw quoi vraiment wax dëgg yàlla ndax client yi moom ñoo ngi apprécié di indiwaat wax dëgg yàlla moo tax daaw daal moo ren daal moo gën a bëri saxti man ci li mo gis wax dëgg yàlla